asalaamaaleykum mbokki safo 7TV bisimilah ci xibaaru marax yi nekk si jukki leen li gën a fës dina ci bokk koppar gi nga xam ne nguur ak Sénégal da ko dugal ci wàllum énergie ci xayma ci ñettaati ñu weesu toll na euh, junni milliards ak juróom-ñetti téeméer million nekk koppar goo xam ni ndaw lu ñu yónni jógee yi moo ko daal di fësal jàpp na daal koppar la gu baree bari te nag ma ngay sàkku ci nguur gu yees gi ñu xool naka la ñu koy euh, wàññee. addu jëmale ci wàllu dem bi ak dikk ne yëngu ca wàllu wa daan nañu mitidlu bu baax doxalinu joriñ li ñu dénk wàllu wa di El Malick Ndiaye ak na mu doxalee ci waajtaayu tabaski bi léegi Dakar dem dikk gi nga xam ne jël na ay busam yëpp ca askan wa doon dem tabaski ji lu bëri nag jàppaleen ne ñu yëngu ci wàllu wa mënuñu ko wannaasu Gora xuma di secrétaire général euh, bu Union des routiers du Sénégal dina ci rekk indi euh, xalaatam addu jëmale ci bëccëgu njagleel wàllum xeex drépanocytose di feebar woo xam ne ni ci wàllum deret la nekk nag loo xam ne ña nga xam ne feebar bi dox nañ seen biir yaram doon nañu amal nag ak bëccëg ci dara la jàmm addu jëmale ci rek taxawaay wi nga xam ne ni nguur gi war na ko ca am ba jàppale leen nag seen wàllum paju mu daal di gën a mën a yomb dinañ ca lu seen i ay kaddu ci bile jotaayu xibaaram addu jëmale ci rek ñu ci réew mi Bassirou Diomaye Faye ànd ak soxnaam war roplaan wutale ci diwaanu France ni ki ji lañ ko amal ni ki ëllëg fas yéene daal di fekkee ak forum woo xam ne ni dañeel wàllam ñàkk mi ak Afrique naka lay def moom boppam ci wàllu woowee itam bokk na ci la ñuy waxtaanee i Union africaine daal di koy seqeek Gavi ñoo ko daal di fësal bu ca noppee dina am ak waxtaan ak ñi ci ma France di Emmanuel Macron ginnaaw rek ab añ wuñ nar a bokk waaye itam ponk yu bare bari ñu ngi koy xaarandi ci boobee ndaje soo leen taaxir loo ñëw ak yéen jaajëfaleen bu baax a baax ci teelu bi ànd beeg 7TV tàmbalee ko xabaar ci tënk ca cap euh, camp pénal bu Liberté 6 kaso woowee jàppale na nag niki tey ay jafe-jafe yu mag la ñu dund bu sukkandikoo ci xabaar gi dañu leen rek saytu seen ay néeg la fa nekk ba tax nag indi jàmbaarloo ci rek ñu caabi féete ginnaaw ak ñay saytu kaso woowee ñu sukkandikoo ci euh, waa Seneweb gis nañ daal ay ay yàmba ci seen biir yi nekk mbir moom mee tax nag ba ñu daal di koy taal Euh, tax sax nag image yu baree bari nag daal di wasaarlewu ci xarale yées yi addu jëmale ci ndawuk FMI di Edouard Gemayel ni ngi tey ji nag ca larba gi daanne artuñeel subvention wu ñu def leer énergie ñetti at ñu génn toll ci junni milliards ak junni téeméeri million jàpp ne daal ko porgu takku takku la ba tax nag muy artu mbir mi waaye tam di sàkku ci kilifa yu yees yi Bassirou Diomaye Faye ak ñoom ci àndal daal di deltu ginnaaw ci mbir wax xool nañu ko woy fale cette année euh, malheureusement. bu ñuy xayma ci ren li nga xam ne moom la ñu jot a jël ci koppar dugal ko ci ay subventions ci wàllu énergie xayma nañu du toll ci 500 milliards ci francs CFA léegi nag bu fekkee dañuy xayma ci ñetti at yi weesu li ñu dugal ci koppar ci wàllu subvention ci wàllu énergie ñu ngi ci 1800 milliards ci francs fa xam ngeen ni loolu diis na lool 1800 milliards ci francs fa ci ay subvention yoo xam ne du ñu ciblé ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla loolu dama jàpp ni lu diis la lool ci économie ci budget bu réewu Sénégal war nañu ko bàyyi xel ci mbir moomu moo tax euh, dañuy fàttali ne euh, am na ay recommandations yoo xam ne yàgg nañ ko fi wax dañu war a bàyyi xel fi nga xam ne foofu lañu ñu war a dugal subvention yooyu euh, foofu ñu gën a jubanti mbir mi loolu yàgg na nekk discours bi ñu yàgg yëkkati. jëmle ko ci kilifa yi mooy nii dafa war a nekk ay subvention ciblée dafa am ñi ko soxla ñooñu la ñu war a jox subvention yooyu damay jox rek benn exemple FMI soxlawul ay subvention soxlawul bénéficier ci yooyu la subvention. de ces subventions ils n'en ont lu mooy loolu ak ndaje wu ñu fas yéene amal xool càmbar askan week ak ni ñuy jëfandikoo ci wàllum dund ñu ko dëdmal ko nag aljuma ñaar fan ak benn ci weeru join ci rek ak màkkaan wu ni ci réew mi jàppale na nag bataaxal yu bawee eh, ci rek joxum dénk lépp lu jëm ci wàllum jënd ak jaay lu mu fas yéene fësal bokk na ci copte ñu indi ci wàllum njëg yi ci wàllum dund bokk na ci rek eh, lu di diwlin ak itam li nga xam ne rek moo di ceeb bi ba ci suukar ak mburu bañ a fàtte nag farine de bi ak itam simon bokk na li fa fas yéene waxtaanee waaye itam daañu addu jëmale ci yenn ponk yu bare bari lu soxal woy eh, jëfandiku yi ba tey ci wàllum koom eh, nguur ak Sénégal dafi jéego ngir woyofal bu baax a baax askan wi seen wàllum dund ba tax nag ay wàññite ñu gis ko ci njëg yi ci rek fan yi weesu waaye daal bu ñu sukkandikoo ba tey jii nag ca mbir wa am na plateforme bu juddu euh, daanaka dëxëñ yi commerçant ki artisanat euh, la ñu bëgg daal moo di nag état wu Sénégal jàppal leen bu baax a baax a baax bu ko defee ñoo mën a daal di amali xëy yoo xam ne dina gën a tax ba wàllum koom ñu mën ko suqali. parc de plateforme des artisans et commerçants di Sénégal di apprécier réduction denrées de première nécessité lu mel ni ceeb suukar diwlin ak ciment. parc nag di interroger wu lu jëm ci wàllu qualité yooyu les produits. Euh, commencé nañu wàññi ñu ngi rafetlu wàññi bi mais man wàññi bi li nga xamante ne moom laa ci am comme appréciation mooy li nga maîtriser euh, mu mel ni ceeb mu mel ni diwlin mu mel ni yeneen denrées de première consommation yi bu fekkee ne da nga ko bëgg euh, wàññi. te maanaam dépendrul totalement ci ndax du nekkul loo xam ne da nga koy bàyyi ci réew mi nekkul loo xam ne da nga koy produire fii donc marge de manœuvre bi ngay am bu boobaa bu néew lay nekk xëy na loolu mooy justifié ñii ne liñ ci wàññi bari na ñii ne liñ ci wàññi bariwul wàññi njëg yi lu baax la waaye améliorer pouvoir d'achat askan wi loolu tamit lu gën la. ma gënal dëgg dëgg dëgg ci wàññi mooy nga fexe nit ñi seen pouvoir d'achat mun a yokk ndax pouvoir d'achat mun a yokk mooy nit ñi am ay liggéey ndax da ngay dugg ci benn famille. nos familles sénégalaises macha allah elles son nombreuses boo duggee ci benn kër da ngay gis ne benn nit mooy jël en charge toute la famille. parc di invité état bi mu gën a yaatal réduction ci yeneen denrées. BTP déedéet yàlla bois te bois bi ñun ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam principalement artisans yi war nañ nañ ci wax ba seet nu ñu ko wàññi te bois bi mën nañ ko wàññi. ni ñu koy wàññee mooy ñi nga xamante ne ñoo yor monopole bi ñu contrôler leen organiser leen ba nga xamante ne bu ñu du du ñoom prix yi ñu indi rek ñun ñu mën ko jënd. ndax wàññi njëg yi dana nekk lu yàgg lool li ci kanam rawul gët. des ci banlieue bu Ndakaar rawatina ca Kër Massar foofa marchand ambulant yi nga xam ne noonu nekk ca suufu woto pont baak la ko wër euh, doon daan seen doole dañ leen faa jëlee ko def di ñiital bokk moomeel waa ndax daal lim ko takk di jar lu gaaw a gaaw ndax nit jëlu ci bare euh, foofee la daal di jaar waaye nag ba tey dañu am métit lu ndax ne nañu dañoo bëgg ñu te leen ak màkkaan bu yaatoo yaatu boo xam ne daañu fa mën a nekk def seen liggéey ndax daal fi leen wutal fi ne nii sax loolee nag euh, barewul lool ndax ñoom ëpp nañ junni ba sàkku daal ñu wutal leen fu gën a yaatu. wàllu dem beeg dikk bi am na tan si lii wër pont bu Kër masaar woto yi ak ñi yor seen tànk ñoo ngi dox te amuñu jafe-jafe yu bëri. li nag gannaaw bi fi mairie bi amale ab opération de déguerpissement jëlee fii ñi doon fatt yoon yi am na léegi ñaari ay bés. Kër Massar aujourd'hui comme je Kër Massar doon na gox gi nga xamante ne nag ñu bari dañ koo taamu jaaykat yu bari yu bàyyeekoo ca Colobane wala Petersen dañuy ñëw daal di wutali Kër Massar loolu moo tax nag ñu bari daal di nekk ci place publique bi amaloon nañ ab opération de déguerpissement ñaari ay bés ci ginnaaw wante nag jaaykat yaa ngi ñëwaat. Mais jusqu'à présent, on, on, que les, les, ces, ces commerçants reviennent. nañu yoon yi waaye lu ñu mel nag si kaw marchand ambulant yi la këpp ñu am nag lu leen metti ñenn si ñoom sax tàmbaliwaat nañu di ñëw di lal fi ñu leen jëlee woon. njaboot gi ne fii yaa ko gisal sa bopp ay yaay booy ay papa ay jeunes yi am job sa yaram day daw ñun ñii di da xëy sax ñu lay jàmbat yoo xam ñii di am heure ñii am problème dund te yow ay jaaykat nga comme ñoom. donc muy métti sa xol te mënoo ko faj. mairie bu Kër Massar jël na sax ab foire jébbal ko ñi ñu yëkkati si tali bi waaye nag nee nañu place yi si bile marché dafa néew lool. ñu 2000 personnes genn wàll gi dugg nañ genn wàll gi dugg ñenn ñaa ngi li nga xam ne moo ñu gën a métti suñu sañoon xool askan wi fu ñu leen organiser pour nekk fa liggéey loolu mooy li nga xam ne moo ñu gën daal lañu ñu bëgg. lu ëpp junni ndaw. fii ci commune bu Kër Massar ñooy jaay ci mbedd mi ñeent fukk ak juróom-benneelu département bu réewu Sénégal amul dara loo xam ne ni ndaw yi mën nañ ci sukkandiku ngir am xëy su weesoo njaay mu ndaw mii ñuy def. jërëjëf Jemma Mbaye àddu ci wàllu dem ak dikk fan yi weesu laataa ñuy wàcc tabaski bi jëruñu dénk wàllu wa di El Malick Ndiaye am na jëflante woon loo xam ne daal neexul benn yoon ñu yëngu ci wàllu wile bokk na ci rek bus Dakar dem dikk yi nga xam ne jëloon na ko jébal ko askan wi ngir ñu mën a dem seen daal di màggal tabaski bile ba tax nag góor a moom itam nga xam ne jiite na ab kuréel goo xam ne euh, ñun daal nañu naan ñoo mer ba futtu ñeel loole jàpp ne daal état bu Sénégal loolee waru ko coow bu metti moo daal di am gannaaw bu ñu bari doon waajal dem julli ji seeni dëkk gannaaw bu ñu yokkee njëg yi lu jëm ci wàllum transport bi ministre bi di El Malick Ndiaye daal di fay indi oto Dakar dem dikk yi ngir rek ñu daal di ñëw yóbbu kiliyen yi li ni mel metti woon bu baax a baax yi les chauffeurs. man jàpp naa ne njuumte gu rëy la ndax Dakarim dikk am na ay lignes interurbaines. quant à Babi Car yëpp dugal ko biir booru marché man ànduma ci da loolu problème état la. mais tegul fenn parce que gare routière boo veree privé la. jaay doole la jaay doole kese la du leneen. moom ministre bi jotoon amal benn visite foofee ca gare boo maraîcher ca Pikine bis boobee la daal di woon xamle nii dina def li mën ngir rek gare routière yi nga xamante ni nekkuñ ci yoon ñu mun leen fay jëlee ba képp kuy jël oto di voyager nga mun koo ñëw defee ci biir gaaru routière bi loole nag góoraxuma di ko si fekk si. mooy jaadu man loolu d'accord naa clandestin clandestin la te nous sommes dans un organisation boobu nag bàyyiwul kenn gaaru routière officielle yi yi état bi fa la ñëpp war a départ oto bu départ ñu recensé ña fa dugg ba xam bis bi set dinañ xam ne tant de personnes ko transporté nañ ko mais loolu mooy organisation. weeru juillet bi lañ fa yéene amal ay waxtaan yu yaatu yaatu jëmale si wàllum transport li ni mel nag ñu jàpp nii mooy nekk li nga xamante ni nii mooy tax ñu saafara dem beeg dikk bi fii ci Sénégal dina tax ñu daal di fixer njëg li ci benn prix. comme ñoom ñun wu ñoom ñoo organiser. il faut venir avec les termes de référence termes de référence yooyu ñu indi nag dañ ñu ko présenté luñ ci ànd ñu ànd ci luñ ci àndul ñuy def contre proposition mais pour l'instant ñun bu ñu amee proposition mënaguñoo wax lenn parce que xamaguñu lan la terme de référence yi di génne. jafe-jafe yu nemmeeku ci wàllum transport bi fii ci Sénégal jur coow bu baax a baax li ni mel nag faral di indi xiiroog ngaayo diggante chauffeur yi ak clients yi.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 pour nga ñaan mu fare ci quartier Médinatoul nekk na bërëb boo xam ne véritable bombe écologique la zone bi bopp fanweeri at ci ginnaaw nekkoon na bërëb boo xam ne bërëb bu mucc ayib la woon ak naataange bi nga xam ne moo fa nekkoon ci jamono yooyu mais ca jamonoy sécheresse ba tey bi la bërëb nekk na jamono ji dépotoir d'ordure te ci itam ñàkk kaaraange bi di gën law ci bi bërëb ñi nga xam ne nag ñooy askan wi ñu ngi joytu lu ni mel fii ñu nekk tey mu mel nii ñu ci jéem pexe ay fanweeri at ci gannaaw nekkoon na fi lu naat booba garabu lu ne amoon na fi léegi nag dem nañ ba loola dañ fi ñu mu lii fi sax tey jëriñu ñu dara ndax fi la sunu njaboot mënatuñoo dem mënatuñoo dikk. ñun waa njaareem sonn nan ñun waa njaareem am nan métit woo xamante ni bii ci sunu fii basin lan nu fi defal lépp a ngi ci biir sunu mbokk yi sunu xale yi dañuy tiit sax ñu wàcc mbartal ñii lii yàgg nañ ko tawat lool ndax ñun la yàlla natoo ñu dëkkee fii ci tës ci mbalit mi bu nawet jotee ñu sonn ah ndax lu ne leen fiy tuub ci ngir xeex li di ñàkk kaaraange bi ak tilim tilim bi nga xam ne moom moo am foofee ca xur ñaan ay ndaw ak i jigéen ñoom ñu daal di regroupé wu ci ab kuréel ngir aménager ak itam set setal bi la bërëb suñu mébét fii ci xur yi mooy insécurité bu doy waar daf fee am insécurité boobu fi am nag waral na àndandoo ko ak sax yaay bi nga xamante ne ni actuellement nii moom nga fiy gis toll woon na ci dayo foo xamante ne nii àndandoo ak ñoom dëkk bi daf doon xaw a jafe lool. de la action yi nga xam ne état du Sénégal mi ngi koy def yi nga xam ne nag moom mooy engagement citoyen yi dañ ko daal di convoqué ngir mën a amal ngir xeex tilim tilim ji am foofee état bu fa nekkal askan wi dana def kéemtulaay kantanam ci satisfaire askanam waaye li nga xamante ne nii tamit moom moo mën a jàppale askan wi toujours mooy li nga xamante ne nii moom la askan wi di jëngul seen bopp dimbale ci président bi ci liggéeyam ndax dana tax dëkk boobu mu jiite mu mën a jëm ci kanam. ngir nag indi ay saafara ci li ni mel ñu jëwriñ ñu dénk wàllu urbanisme collectivité territoriale ak aménagement des territoires di Moussa a Fofana daal jëloon na ab nag engagement ci journée de lancement seetal sunu réew bi ñu doon amal ne dana def site bii di Xuru Ngañaan benn ci ay priorité ci réew mi Bassirou Diomaye Faye ni ki tey yegsi na ci diwaanu France ànd ak soxnaam euh, fasine teewe ni ki ëllëg euh, ci alxames gi lu ñeel ab waxtaan wu yaato yaato ñeel wàllum ñàkk yi ak ni ñu def rek ba Afrique saw jant daa demal seen bopp ci wàllu googe euh, jàppale na nag bu co jugee dina séq ak waxtaan ñu ci réew France Emmanuel Macron ginnaaw rek ab nga xam ne dañ ko séq waxtaanee nag ci ponk yu bari ñuy xaaral itam daañu waxtaan jëmale ci wàllum soldaar yi nga xam ne daanaka dañoo nekk ci Afrique euh, sow jant ba tey sax ci loolee la ñuy addu France jël ndogal fas yéene daal di wàññi limu soldaaram euh, ci denduk Afrique rawatina ñi féetewoo sow jant jàpp ne daal la mu bëgg rek mooy wàññi lim nga yem ci euh, juróom-benn téeméer rek soldaar kottu ci Sénégal nag fii lim nañ lu toll ci ñetti téeméer rek juróom fukk ci soldaar nekk fii ci Ndakaaru waaye bëgg nañ daal bu ñu defee xayma ga ba noppi téeméer rek des ci mu nekk nag ay ponk yoo xam ne boo moyul ni doon waxtaan wa nar a seq ci diggante Emmanuel Macron ak Bassirou Diomaye Faye. bu ñu noppee ci opération yi nga xam ne moom la ñu fas yéene amal ci dendu Afrique réew France bëgg ko tàmbali ay soldaawam seen lim dina wàññeeku lool. yëf natt nañ ko sax si juróom benn téeméer côte si Afrique sow jant ak si xolu Afrique fii si réewu Sénégal militaire français yi fi nekk seen lim toll si ñeenti téeméer ak juróom fukk yëf yi daañu ko wàññi ba mu toll si téeméer côte sa Tchad ñu toll si junni yëf dina wàcc ba si ñetti téeméer sa Gabon ñu toll si ñetti téeméer ak juróom fukk daanañ leen wàññi ba ñu toll si téeméer sa Côte d'Ivoire lim ba nekk si juróom benn téeméer dana wàññeeku ba ci téeméer bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi tukkee ci Élysée réew France li mu jublu ci wàññi li mu militaire am yi ci dendu Afrique du leneen lu dul fexe rek bandi ay jooyanti ci li nga xam ne moo ko lëkkaleeg dendu Afrique ñeel wàllu défense juróom-benn téeméeri militaire yi ñu ne dañ leen di bàyyi ci continent bi lim googee nag mën na yokk wala wàññeeku lépp rek dafay aaju ci bëgg-bëggu réewi Afrique bu buñ sukkandikoo ba tey ci Élysée lëkkaloo gi kay léegi day am cote ci wàllu formation maanaam tàggat militaire africain yi seen xam-xam dong lu ñu bëgg léegi di séddoo ak ñoom lu ni mel nag dafay firndee rek ni bedd gi yenn doomu Afrique yi di be di réewu France yëfi tàmbalee sax di law si Afrique yi wërngal këpp loole moo waral réew France jël dogal di teggi tànkam nànk-nànk si mbiri Afrique yëfi nag moo ngi commencé bi militaires yi jëlee nguur gi sa réewu Mali Burkina Faso ak Niger ñoom ñoo njëkk woon gannaaw réew France ba noppi jox bopp Moscou réewu Russie si lu soxal nag réewu Sénégal jàpp ni nguur gu yees gi ba ñu ko tabbee ba léegi bokk na si li muy fësal saay su ne mooy rek yéeneem fexe ba réewu Sénégal moom boppam si fànn yépp waaye mu su ñoo wax ni dañuy génne militaire français yi si biir réew mi. njiitu ba si Diomaye Faye war a tase niki suba ak naataangoom bii di Emmanuel Macron sa Élysée lu ni mel nag ñeel forum mondial bi fa Gavi di amal ñu war a waxtaanee wàllu ñaq di vaccin mbirum militaire français yooyee. fii si réew Sénégal du ñàkk dina bokk si ponk yi nga xam ne ñaari kilifay réew yi dinañ ko waxtaanee si seen ndaje googee njiitum réew euh, sud Afrique du Sud daal nañu koy tabbaat ñaareelu mandatam ginnaaw nag amoon nag maturité gu bare bari moom Cyril Ramaphosa nga xam ne daal ne waat alarba gi fukki fan ak juróom-ñeent ginnaaw rek ci cérémonie d'investiture boobee nga xam ne euh, bari woon na nit ko fekkee atam toll ci juróom fukki at ak benn daal nañu koy tabbaat ci benn ay bés yu ñu génn ca parlement ba waaye jàppaleen ne ñaar jongante euh, pencum ndaw réew mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi ci weeru mai jàppaleen ne congrès national mi nga xam ne moo nit ci nguur gi def rek ñàkk nag li nga xam ne rek moo di majorité ba ndax la mu am ci ay xob buñ ko xaymaa dafa nekk téeméer boo jël a euh, ñeent fukk ya dem ci diwaanu Tchad foofee ak lakk gu metti yi moo daal di dal nag soldaar yi maakaam nga xam ne euh, fa lañ doon denc nag seen i ngànnaay moo daal di takk doon loolu juróom-ñaari doomi juróom-ñeenti doomi aadama daanaka euh, ci ñàkk seen bakkan ñeenti fukki doomi aadama ak juróom-benn jëlee ci nag ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo rek euh, ci xibaar yu daanaka joxe féetewoo ca capital bu N'Djamena foofee nag la mbir ma daal di xewee ba tey nag ña nga ca bilang bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi nga xam ne mu dénk lépp lu jëm ci wàllum wérgu yaram waaye daal nee nañu daañu def seen kéemtulaay kattan ngir nag euh, fexe rek euh, ba toppatoo soldaar yi waaye itam jéeja daal di fay yem bu ñu sukkandikoo ci jorin wi gàlloo lépp lu ci bu bi suré waaye itam yor kàddu ko nguur gi mbokk yi yëkkati jotaayu xibaar yi jot na jaajëfal leen lu baax ci teewlu bi ànd bekk 7TV ci kanam tuuti Mamadou Awa Ndiaye dina dalal ganam ci biir 7TV soir ca ngeen jëf